asalaamaaleykum gars yi nuyu naa leen daleen ak jàmm ci Sen Sport 221 équipe nationale U17 bu Cameroun dañoo woow lu toll ci fanweeri jour ngir war a jouer ci li nga xamante ne mooy qualification CAN U17 bi waaye nag bi ñu defee li nga xamante ne mooy ay saytu muy loolu nga xam ne FIFA daf ko dal di léeg ma waral muy lépp loo xam ne compétition la bu ñu jëm bu fekkente ne dafa aju ci ay gone yu koy amal dañuy ma li nga xamante ne mooy atu jour ya dem léegi nag Cameroun bi nga xamante ne saytu nañu atu jour yooyu nga xam ne ñoom la ñu war te ñu toll ci fanweer ñaar fukki ak benn la ñu daal di génne ci ñoom ñëpp at ya ñu wax ne moom la ñu am amuñu ko weesu nañu ko di dem ay boroomi kër lañu ñu ne ay ay U17 lañu te fekk loolu dara du ci dëgg moo tax bu ñuy xool groupe ba ñu wowoon daanaka jeex na juróom-ñeenti joueur képp ci des ñaar fukki joueur ak benn yëpp dañ leen ci dal génne ne dañ doon gone gone lu waaye duñu ay gone loolu nag nekk mbir moo xamante ni doy na waar jàpp naa ne Afrique moom li ni mel waroon na fi jeex waaye nag xëy na léegi tey ndax muy bu ñuy xool wàññeeku na bu baax a baax Cameroun nag yi ni na war na a bañ a dal ndax am na ay joueur yu nekk ci Bousso Gok wala yenn ci ay joueur ñu ngi équipe nationale bu Cameroun buñ la waxé seeni at da nga naan déedéet ñi ay borom kër lañu waaye at yu néew la joxé kon lool nak mo dal di feeñaat fi rek kon fi mom dañ leen japp waaye lu ni mel mel ne ñom ràññee nañ ñu leen ci voilà kon fanweeri joueur yi ñu wowon ngir ñu wara a jouer ci éliminatoire yi 21 yépp bu ñuy dañu leen dal di génné ci mbir yu amu set wecc ndax ne li nga xamné moy at yi ñu def ci seeni këyitu judd ne ay goné lañu lool dara du ci dëgg test IRM yi moko dal di fessel comme nak gaay am nañu ay matukaay yo xamné dañuy xeyma li nga xamné moy at atu joueur yi kenn mënatul nak kenn képp ko kuy ba signé na ba commencé jouer waaye gis nga fa mu mujj maanaam gannaaw bi nga xamee ne dañoo def report dal di koy boole bi ñu demee ba nga xam ne dañoo dem di tas euh, saytu li nga xam ne mooy at yi dañoo gis ne carrément kii at yi mu déclaré ak yamu am wuute na dem moom dañ ko jël ci dal koy suspendre ay at boobu léegi fubalul ba noppi am na ay daan yoo xamante tegoon nañu ko dégg ci kaw club boobule voilà ndax kat li nga xamante ni mooy fraudage boobu nga xam ne dañ koy faral di def ci kayiti euh, jour bi loolu dafa nekk mbir moo xam ne gars yi ko kon Cameroun tey ji loolu moo leen dal Sénégal nag jàpp yu ni mel amaan na géej na leen dal wala boog fàttalikuñ xëy na mu dal leen ci at yi ndax bu ñuy xool gone yi ñu am nag xale yu mën a football bobu yene nga baye xel pa yoy nga xamne ñom la RD Congo indi won ño xamne ay moustache lañ yor ko ci xol kanam gi da nga xamne ki mag mag la voilà yu ñu mel nak dafa bari fi ci Afrique te nak war nañ ci baye xel voilà yoy mom képp ko xamne ya nga deglu bu fekke da ngay def li nga xamne moy sport buñ la wañu lo say at yene ki bu ko nangu parce que amul ben njëriñ ben njëriñ amu ndax fi buñuy xol brésilien yi doon nañ lan di dégg maam tuumaal ci lu ñu mel di wax ne képp ku ci at duto mëna defati dara parce que dañu wañi seen at buñu baye lual xel lool mel ne ni la waye buñu njëkk lool lañu fi doon gis fi tam ci africain yu ci bari bari ku ci làq fanweri at danaka yow doto amati njeriñ say morom dañuy am ay 35 ans di jouer ba 36 ans di def di toj seen club yow fanweri at sax balang koy am fek yow jeexal nga tak lu ni mel nak likay wara du dara dul wañi at mu bari mi wala kon loolu moy li nga xamne mo dal Cameroun tay ji juroom ñent joueur kep mo dess ci groupe bañu wawon abib Diallo mom dafa dal di deng maam dugal tay ji juroom ñaareli balam ci saison bi mom nak nek joueur bo xamne xarañ na torop nak don tane yóbbuwuñu ko ci coupe du monde bi xawma nak lan mo dox digganteem ak sélectionneur bi waaye bala ñu dem ci mondial bu ngeen fatale ko bokk na ci attaquant yu gëna a en forme waye taxul wa mu dem ci coupe du monde bi légui nak tégat na dégg nga maam euh, mbir mi ci ray bi bu ngeen baye xel bi moy juroom ñaari bal bo xam duggal dugal na ci 14 titularisation fukki yoon ak ñent la door voilà kon man nañu wax né xaj bi yëpp dafa dal di marqué bit mo Abdou Diallo tay mo ci muju voilà ci jongante gi nga xam ñom amon nañ ko seen ak ñi di wa 3 Liverpool mom tay ji dañu ko duma brandford moko dal di dor de brandford de moy équipe bo xam ne équipe yu magi fofu la ci Angleterre neexalu ci kenn man nañu wax né dal équipe yu magi mu jonda dal dajal ci atum ren bi kenn ne képp ko ci dóor yaakaar naa mooy Arsenal bi nga xam ne moo nekk ci bopp classement bi waaye yeneen gaay yëpp ñam nañu ay Manchester ak yeneen club yi ci bari am na fu mu jaar ak ñoom tey jii nag Liverpool moo aaye ñetti bal ci benn la ko dal di dóor voilà loolu mooy li nga xam ne dégg nga moo xew ci jongante googu rek Carlo Ancelotti moy tagat Real Madrid ci conférence de presse bi mo doon amal tay ji match bi nga xam ñom wa Real am nañu ko muy équipe bu mag bi xam nga da wara football suba ci li nga xam moy coupe du roi di bi nak dafa biral ne kiri Carlo Ancelotti li mu daal di xam la ci conférence de presse bu moy jour yi dana ci am ñu bari ño xam duñu football bokk na ji ki nga xam moy Courtois di gardien bi Carvajal Karim Benzema Toni Kroos Alaba Vinicius ak ki nga xam moy Mendy ñi ñëpp duñu football ci jogante gog nga Real war nako am ci li nga xam moy coupe du roi ni ki suba loolu boko kon amal dina am ay gone yo xam nañ ci amee nga xam ne jamono bi dafa bokk joueur yi gën mag fanweeri at ak juróom-ñeent am na ko waaye nag moom day ci waxi prolongé contrat lay wax kayiti xibaar dañoo biroon ne day prolongé contrat ak ñii waa Porto kon moom bàyyegul ndax nee na dafa bëgg continuer football ndax dafa bëgg dem ci li nga xamante mooy Euro kon day continuer ak ñii waa dégg Porto bu ñu sukkandikoo ci kayiti xibaar yi dina dari di prolonger kon contrat ki nga xamanteni nak mom lañuy wax Sebastian Haller mom nak gannaaw biñu ko opérer bu yagul dara dal dina amal retour am mo ngi commencer entraîner voilà di waajal bopam ci li nga xamanteni moy deng dégg am delu ci wat ak équipe bobu di Dortmund gannaaw bi nga xamanteni ka dafa amone cancer opéré nañ ko ñaar yoon mom ki nga xamne moy Sebastian Haller kon jamono bi commencer na li nga xamanteni moy tagatu ngir defaraat yaram ma wara a li nga xamne moy retour bi voilà kon lolu moy li nga xamne ne jotté xew ki ñuy wax Lucas Perez ancien attaquant bu Arsenal la mom nak at yi yéen ko doon gis fofu la ci club bi nga xamne moy Deportivo ren yéen a ko doon gis ak ñii di waa Cadiz mu nekk attaquant bu xarañ fan yi rek dugal na bit fan yi rek dugal na moom nag dafa dal di dénk maam ak Deportivo La Corogne Deportivo La Corogne nag gone yi xamuñu ko yàgg siifur La Liga wala yàgg siifur Ligue des Champions xam nañu ko dafa bokkoon ci club yi gënoon mag ci ay jamono foofu la ci Espagne daan toj li nga xam ne mooy Ligue des Champions léegi nag at yi ñu gis ñu am jafe-jafe jamono ci troisième dem signé fa te sax di kayiti xibaar li ñu biral mooy maanaam koppar yi nga xam ne moom la ñu di nga maam euh, signé kii di Lucas Perez moom mii daf ci loxoom daf ci dugg maanaam club bi nga xam ne mooy ñu jot ci ki nga xam ne mooy Lucas Perez mii ñu signé tey moom ci boppam dafa daal di génnee lu toll ci five hundred thousand euros wala five hundred thousand dollars maanaam lu toll ci cinq cent mille euros na ko ci kopparam daal di mottali li nga xamante ne mooy koppar yooyu li su ko defee mu mën a génn Cadiz ngir dem signé foofu nga xam ne moo ci Deportivo Lacoureñ lan moo tax mu def loolu mooy nee na foofu mooy club bi nga xam ne fa la dooree lépp ancien club am la te mënul seetaan di len dégg mam gis ci situation bu ni mel ñuy soox nak da fay dégg mam tàqale ko ak ñi di euh, Cadiz mu jëro ko sax mu génné xaalisam tek su ko dal di jéxal contrat ba dem signer ak Deportivo dégg mam La su dégg mam war na man war leen mëna jappalé ci leader ci saison bi ndax dafa bëgg xex ak ñom ngir ñu dal di yégaat jëlaat seen place fi nga xamné fi fii la ñu leen fi ñu wara nek loolu la def mu nek mbir mo xamné ñu bari ngoy koy lu mom Lucas Perez bi nga xamné attaquant la bo xamné jamono bi sax daane ci forme voilà kon bayina Cadiz signé na ak Deportivo La croñ ngir bëgg leen dimbalé ngir ñu yegaat comme ni ko kayiti xibaar yi daal birale voilà gars yi doon mën a jàpp kon ci tënkum xibaar continuer leen di suivre Sen Sport 221 the best sport this channel